la la مسنون يا أكرم من لم يسل حرما وبلا بغير لنا البر ومقتدرا يا الله كن الأبرار أوالي مجنونا xasida yi rek xasida yi mooy liggéey bi nga man loo tudd man loo nee na ci xasida yi rek xasida yi mooy liggéey bi man loo tudd man loo sunu bàyyi sunu sëriñ bin àndal mu sëriñ Cheikh Assane moom sëriñ Naar Omar waaye di xas sa nuyoo sëriñ Ibrahima mi nga xam ne ma woote bis bii di dogal ngànt ci bett gin ñu bett ci waxtu wii ngir ñu yëkkati fi ay kàddu ndax danoo ñëwoon rek ànd ak sunu sëriñ sunu baay sëriñ Cheikh Achane ñëw ziyaara si sëriñ Ibrahim ngir ndim jàppe njabootu kër sëriñ Omar waaye kàddu gi ñu jox jin yëkkee ni jox ñu ko séentuwuñ ko fi woon na daan ko fi def xam ngeen bis bi buñ jëlee tudde ko sëriñ Cham muy jëmm joo xam ne albahrul xatam tam la woon almadih wal jadir bil matti washana muy Serigne Sam Serigne Sam bi nga xam ne dundam gépp def koo jëloon jeexal ko ci xidmatan lil islaam muy liggéeyal lislaam doonoon jëmm joo xam ne li boroom xam-xam yi di wax ne man arraqa walliyan faka annama ahyaahu wàlli yi suñ boroom wàllu suñu borom bu génnee jamono ñu di ko taarixal di ko nettaleel day mel ne dañ koo dundalaat ci kaw suuf mu bokk ci saalihin yi nga xam ne wa inda zikri saalihin tanazzalu rahmat jëmm yi nga xam ne boo leen dee fàttaliku di leen tudd di tudd seenu mbaax borom bi subhaanahu wa day wàcce ay yërmandeem di ko dott ca barab ban koy defee kon bisub tey di bis la boo xam ne kin ci fàttaliku muy jëmm joo xam ne bokk ci ñi suñ borom wax na minal mu'minina rijaalun saddaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantasir wa ma badalu tabdila jëmm yi nga xam ne dañoo daalante suñu borom subhanahu wa taala te lépp luñ fasalante seen borom ba ñu ni génn jamono mosuñu koo fecc noonu la ko Cheikh Ahmad Rafaay al waxoon muy boroom xam-xam bu mag boobu na arrajulul kabir yamlaul kawna walaw duya alqubba bilxajari la ajaaba rajulul kabir mooy jëmm ji nga xam ne day fees jamono bu woote woon ak xutbu ci ay doj doj yooyu yëpp dana wuyu xutboom googu waaye rajulul kabir boobu ba tey ci rijaal yooyu suñu borom tudd ci foofu ci alquran ni ko Cheikh Amadou Rafaay alkabir waxee nee na mooy jëmm yi nga xam ne dañuy natt seen wax baynal aqiqa wa sharia jëmm jooju nag sëriñ Sàmbay ci la bokkoon sëriñ Sàmbay moomu nag huwa ash-shaykhu Mamor Jaara Mbay ñu ngi ko tudde woon Mamor Jaara su mu yebbi shaykh Mamor Jaara mu shaqiiqu shaykh al qadim Mamor Jaara bi nga xam ne moo sëriñ Tubaa ñoo bokk lépp radiyallahu taala anhuma waaye li gën a siiw ci tur wi mooy sëriñ Sàmbay day al alimu saahid di boroom xam-xam bu dëdd woon boo ko ci wootekat yi daan woote gën jamono ci atum 1920 ci Louga ñi ne ci mantaka bi ni wax Louga ci la gën a jamono ci atum mi ñi ne 1920 ñi ne 1922 génn ci askan woo xam ne askan baax la askan woo xam ñëpp ay sang usra diiniya saaliha ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fàtte njàmbur askan woo xam ne li leen xamee mooy diini ak ibaada ak taqwa ci askan woowu sëriñ sàmba sàmbay génne waaye li ñu bokk bokk ci askan woowu jëlul woon askan woowu di ko tiitaru jëlul woon askan woowu tamit na ci la bokk rek yam ca dafa am cëru askan yi ba noppi yàlla dogal it mun am liggéey boppam boom liggéey ba suñu borom may ko li mu ko may mooy wala borom im muxtaarul adab ba waxoon rek loolu dalul saam siñ siñ sàmbay laa taqul asli wa fasli abada innama asul fata ma qad xasal xad yasudul maru bi xayri abdin wa bi usni shabak irkaamu irgaamu loolu dalul woon siñ sàmm daal wax fa tiital rek ne man doomi siñ ahmad shaqir mbay laa yem te de na ku ne xam ne waajuram mu góor mooy ahmad shaqir mbay al maaruf waajuram mu jigéen ñu ko daan wax soxna Fatima du Caam yàlla dogal bi ma tee jàng moom sëriñ Cham di maam Mor Jaara ba tey waaye waajuram daf koo jël jox ko ku ni wax sëriñ Moussa Mbaye sëriñ Moussa Mbaye moomu moo ko jàngal alquran comme nin ko mbaaxoon rek nga xam ne ku ma ta dal jàng ñu daal lay yóbbu nga dem jàngi alquran ba mokkal alquran sëñ Cham bi ma tee dal jàng sëriñ Moussa Mbaye moomu moo ko njëkk a jàngal alquran moo ko njëkk wax neel baa mu ne baa neel sin mën a siin neel miim mën a miim xanaa kon la Cheikh Ahmad Bamba ba dal na ko waaye su maa yi bas minu sabb yi fii maktabi yaktubu lil ali lil waliday wala men yuallim nee na nit bu amee doom yóbbu ko ci daara ji sëriñ bi ne sëriñ bi ne ko neel baa mu ne siin a siin neel miim mën a miim sëriñ bi donga bi ñaari waaye juróom ba liggéey ñëpp àddina leen jëm kenn du dem sawara loolu ci baasin miim la amee ba waral sëriñ Moussa Mbaye moom moo ko njëkk a jàngal alquran ba mu demee nag ba mokkal alquran xattan wa ihsan wa tilaawa ci la tuxu nag demaat ci beneen boroom xam-xam bu ñu wax asayku Mbay Ture ngir gën a rafetal am njàngil ak yu mokkal ni alquran gannaaw ba la fa jóge nekk mel na ku laxas jëm ci jeneen jëmm ju ñu wax di sàkku ji fa xam-xam xam-xam bu am solo waaye ci la laxas ànd ak rakkam walla magam muy alaaji ji li mbay ñoom ñaar la Cheikh Amadou Sakhir Mbay jëlandoo yóbbu leen ci daaray kokki ngir ñuy moom it jàng jàng seen alquran mottali fa seen alquran jàng fa al ulumu charia yëpp ka nahwi wal urud wal bayaan wa luqatul arabi wal maani wa baaduhu tafsirul quran suma alhadisu qaalahu dayman noonu ko Cheikh Ahmadou Bamba waxat ci masalik bi ñun lépp ñu jàng fa ci dëkk boobu ñu wax kokki foofu sax euh, mas na dem Louga booba jëmm ju ji daan gàdde ji daan gàdde barabu maam Cheikh bi fa laa fekkoon am lu ma yéem ma laaj ko ko na ko waaw ñaari doomi Cheikh Ahmad Sakhir mbay yii de man damaa am ak yéem ci moom mën ne ko kii suñu mboroom da koo jox àdduna may ko alal kii su mboroom jox ko xam-xam xam naa ne dogalu su borom la sedd séddaleem mu ne ma toogal ma am lu ma la ci nettali loo xam ne Cheikh Ahmadou Sakhir mbay moo ko waxoon mu ne ñoom ñaar bi ñu leen débbee ci daara ji nee na bu ma bu masaan a bind ji sëñ Sam moom du yittewoo lu du ji rek nee léegi-léegi bàyyi jili ci boppam su jàngee tuuti da teg àlluwa ji dugg ci àll bi dagg lu mel ne ay socc wala ay nangama nangam bu dikkee di ko jaayaat nee na sabab boobee mu doon def ba ko Saamul Saxir Mbay yégee ban woolu ko ba mu ñëw ba mu ko ñaanalee dana ko lii de yàlla nañ ci jóge mu doon mu doon mu doon barka ci yow nee na mooy alal bay jili ju mag jooju daan may wax ne xam-xamu sëñ Sam bi nga xam ne jaaxal na jamono koroog la ko baayam ñaanal na ko danga xam ba xam lu nekkul ci ay téere nee na koroog moo waral xam-xamu sëriñ Sam Mbaye bu mag boobu te dégg ci Abdoulaye xam comme digganteem ak sëñ Sam muy professeur bu mag di borom xam-xam nee na ci xam-xamu sëriñ Sam boobu nee na mas naa gént moom sëriñ Saam yonent bi sallallahu taala alayhi wa bi mu géntee gis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na koroog gis na xaatimatu nubuwa wa imaamul a gin bind ci mbaggam rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam Abdoulaye Diop nee na koroog nee na sëñ Saam ko li muy wax de na koroog sëñ Saam na ko rasulullahi sallallahu taala sax wax na ma loo xam ne duma ko wax àdduna àll géemal xiyaama akbar képp laa koy wax kon kooku jëmm la joo xam ne kenn mënu koo takk kenn mënu koo xam xam loolu loolu ñëpp mën nañu koo seen koo tàllaloon micro ci mbokk yi fi nekk yaar yooyu lay wax ci moom jaamukatu yàlla la aw ñaqamit mu doon dundee taw yaar rek muy melukaanu jullit xam nga ni jullit léegi moom ko su xaw waaye mag ña ay jullit lañ woon yu raxul dara dina ko doole jullit tànn li yonent bi waxoon ne ñooñu ñoo gën ci kaw suuf muy xayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu yonent bi muy tudd ñi gën waxul askan tuddul ci julli tuddul koor wax na rek ñi gën ci kaw suufu si yàlla si mooy ñi jàng mi ko kon ki ñuy fàttali ko tey ñi gën ci kaw suuf la bokk di suñu ci kaw suuf ci la bokk muy jàngale al-Qur'an ak di may di dundee ñun nag fi ne jamono laaj na ñu portale leen nit ñi ba nit ñi man di leen roy donte mënul leen seet nag ñu fexe ba am ay jikko ci ñoom loolu kat ñu taar ci booy gi bari na ci ñun lool ñoom nag diine lañ doon def ci lañ nekkoon ak ngor si ma ngor it su borom tànnal koo bàkk yu baax te sëñ Tuubaa nee na baax ay way jur ak yóbbal la day tax nga ci seen barke loolu sa jëf mooy su borom tànnal ko way jur yu baax tànnal ko meen moo xam ne askan wu sell la waaye way jure nit di sëñ Omar Jéey ñëpp xam ko ci jàngale alquran ak jaamu yàlla te sax dafa am dafa am wax sama biir wax ne sëñ Omar moom xam naa taxul sax ma miin ko waaye sëñ Mame Goor moom ci moom rek man nga ci copier sëñ Omar ba xam loo war a doon léeg-léeg it ma wax ne Mame Goor dafa def ne Omar da koo màgg rek waaye bu dee ci fii la ndax euh, ni Omar doon dundee ci jaamu yàlla ak jàng alxuraan loolu bi mu ko ci yaree sëñ Mame Goor dafa daf cee def lu kawe ndax mënoon na mënoon na rek li ko Omar yaree woon mu jóge fi mu rax ko gis nga fi ne li ko Omar bàyyee woon. mu ko wax man fekk <laughs> sant yàlla lool euh, te it xam euh, li mag ñi wax ne léeg-léeg ni dana waaye xam naa ne ñii sëñ Amar di pukkale woo ëllëg sëñ Maam Góor Dieye ci lay bokk ngir yoon yu mu awoon ak mu ko tegoon te mooy mu dund baax mais askan baax wajur mu jigéen it di soxna Anta Sylla di doomi sëñ Mor Xujje Sill sëñ Mor Xujje Sill soxna Xujje bu sum bi doon yaayam ak ka ca Poroxaan ñoo bokk ndey ak bàyyi gis nga bu dee bokk gis nga fii ñu ko tànnal mel ni ñu ko soxna Anta Sill nga xam ne muy wajuru sëñ soxna may ak soxna maam bu soog sëñ Suleymaan ak ñu bokkal bi ñu koy tànnal meen gis nga kii jigéen ji ñu ko tànnal soxna Anta Sill baayam di sëñ Mor Xujje Sill sëñ moom xujja sill it yaayam di soxna xujja buso soxna xujja buso mook sëriñ buso bi ak soxna jaara ñoo bokk day bàyyi <laughs> loolu nag rek baaxee am wajuru soxna anti sill ak Cheikh Ahmadul Xadim seen ñaari wajuru jigéen yaa bokk day ak bàyyi kon gis nga fi mu ne boo leen lim ak bakku boo ba wax ne ñan ñooy mbokki sëñ Tuubaa da wax ne sëñ maam Góor mbokkum Seexul Xadiim sëñ Mor eh, doon yaayam ak soxna Jaara ñoo bokk ndey ak baay te soxna Jaara nag eh, sëñ Tuubaa ngi tudd tudd borom saabu kon sëñ maam yaayam wéy juram di sëñ Mor Xuuja Sill ak Seexul Xadiim seen ñaari moo ko métti waaye boo delloo ci askanu yaayam yaayam soxna xarika soxna xari Mbàkke mi ko jur maam Ballan Isa mooy baayam te maam Ballan Isa muy wajuru sëñ Mbàkke moo Anta Sylla mi nga xam ne muy wajuru Sëñ Xaadim ak borom dëkk bi di maam borom saam kon sëñ Amar <laughs> sëñ Maam Góor taala kon soxna Anta Sylla fi ko fi ko fi ko yàlla génne mooy sëñ Mor Khoudia wax naa la ni mbokk ak sëñ Touba soxna Khoudia Sylla ak soxna sëñ Mor Khoudia ñoo bokk ndey ak bàyyi soxna Khoudia Sylla moom la sëñ Ahmadou Ndoumbe kon bu ko ko tànnal loo askan bu baax woo nga a ngeen xam ne ko askan bu baax muy sëñ Mor mooy maama ba ko sëñ Touba seen ñaari waajur ya bokk lépp seen ñaari waajur waaye soxna xari kay soxna xari mbàkki mi doon wajurum bu jigéen mook soxna mbàkki seen yaay yaasin busoo ak soxna jaara bokk ma busoo bay <laughs> gis nga koy pëlal ko ko foorle am nga lu rëy ndax askan mel dafa foor gis nga soo gisee kon soxna mook sëriñ Bousso bi ak soxna Khoudia Bousso ak soxna Jaara ñoo bokk ma Bousso Mbaye Yacine Bousso nag moom la maam Balla yi sa jël am ci soxna Mbacke ak Xari Mbacke ak Sidi Mbacke Sidi nag moom la woon soxna Xari Mbacke moo dem Kànkar am fa soxna Xari Ka mooy nay soxna Anta Sill ñu wajul seen góor bi ñu tudde bis bi soxna Mbacke ñu bokkal dem kër Sayar Diarra am fa Basine Mbakke ak Fass Sayar Basine Mbakke waajur waaj Touba Mbaye Fass Sayar mooy waajur seen Mbakke Ramata bu baax ma seen ñaari maam yi ñoo bokk mel ni maam te maam Balla Issa yooyu nag seen wul ko woon a xam de du ko woon xam kon sëñ maam Góor tànn ko waajur yu baax sëñ Amar Gueye mi doon baayam moo njëkk rab ab papillon mu tiim sëñ Mor Diarra di mu delloo ci boromam. mais ñi njëkk ak pavillon mu tiim sëñ saam ca la sëñ war a bokk eh, mu sëñ jëkk naa ràbb ab pavillon boo a ràbb tiimale ko sëñ Mor Jaara mu doon sëriñam te sëñ Mor sëñ Mor Jaara doon buntam bi fi sëñ Mor a jógee la jox boppam sëñ Baara Xora Jam moom sëñ la war a jéey xam ne jàngale alxuraan ak bay di loolu ca sax ba di loolu la ca la yar sëñ maam góor jéey ñii

moom am na ay at jaaru fa ay eh, at ah. yoo xam ne génnul kër turum sax jàngale alquran bañ di dundee bu nawetee mu dem ndokk li muy bay ci <laughs> li muy bay ko war di jàngale alquran loolu ci la ko doon jaax kon si moom nit ku baax la koo xam ne di kuy sànn nekk na ci moom te dafa ne jumaa ji nag xam na ko man daanaa ko gis mbàkk xew bu ne fa jullee si fi ne mbàkk xew daana fa jullee si jumaa daana jullee ci kër si bu xëytër ngir diine ñor ko pour l'islam ñor ba noppi nag mu amoon dignité moom sëñ Mangor te sàmmoon ngorom nit baax na ba tey sàmm lool waaye amul fi mu àgg moom sëñ Mangor moo tax leen moo xam ne man ma man waaye nee na sëñ Mangor comme bàkkal rek war ngaa xaw tiit ndax mag ñooñu kuñ bokk ku bokk ci seen dara war ni sàmm ñafe ne tey moo waral ñu ñëw fi muy sëriñ sëriñ Ibrahima Mbaye mii mbokku Sénégal gépp la kon may tàmbalee di nuyu kilifa diine yi ma fi fekk yépp ku nekk ma lay nuyu ci sa tur te di leen sant di leen gërëm. ci seen teewaay ndax sa xarit sa wóllëre su xewe xewlee ñépp bàyyi li ñu jàppoon ñëw war naa ci xaritoo gi ma am ak Ibrahima mbay mii ma sant leen ci yéen ñépp ci seen taxawaay di jiital ci nuyoo bi waa kër Cheikhul Khadim ñi nga xam ne ñooy suñu yaakaar tey ak ëllëg di ci boole képp daal ku ci teew di nuyu ñi nga xam ne aussi ñoo bokk langue politique gi ñuy yëngu ak fu mënti bokk di leen sant yéen ñëpp tamit ci turu Serigne Ibrahima mbay waaye di ko jaarale ci maire de la commune le ministre Galoba nga xam ne mag la ci ñun wóllëre la ci ñun xarit la ci ñun di nuyu aussi délégation bi ko fi teewal ma ñëw fekk fi suma papa suma nijaay muy Mor An Gueye ñu bokk parti bi ñu bokk muy parti socialiste bii ki nga xam ne moo ma yar daanaka defar ci man lu bari may ma soxna muy yàlla na ko yàlla yërëm te xari ko aljanna muy Ousmane Tanor Dieng bi muy mujj fii Mbàkke këram lañu yendu moo tax bi ma ñëwee fii timit ci nit ñu yare ma jaar ci moom mu magal ñu teete ñu jiite ñu ànd ak moom ba fii bokk ci délégation monsieur maire man nag fii ma ñëw fi tey du ne guléet ndax booba maa ngi nekk tuut tànk lool di jàng fii Mbàkke boobu amaguma sax BFEM maa ngi def quatrième ma toog suñu kër di réviser guddi booba Cheikh Ibrahima Mbay mii moom it tu tànk la di wër ci kër yi di jàng ay guddi àjjuma ma toog jàng yi neex lool musuma koo dégg musuma koo gis ma daal di jug di ko wër ba fa muy jàng ma toog bu mu jàngee ba pare ma ne ko sëñ bi yow de li ngay jàng dafa neex ci man lool noo tudd mu ne ma man Ibrahima Mbay laa tudd laaj ma sama tur ma ne ko man Bunaama Sàll laa tudd booba ba léegi yàlla ñuy suturaal ñu ànd ànd gu wér ànd goo xam ne ànd gu dëggu la ànd goo xam ne yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba ak xariti ak xasaayiti sëriñ Touba yi rekk ko lal bërki démb ci Jolof bi ñuy jàng kasu rajab gi nga xam ne suñu ay waajur ñoo ko doon def foofa nga ñëw yaa ñuy koy jàngal at bu jot bu may takk soxna ñëw nga bi sama waajur wàññeekoo ñëw nga bi sama yaay jógee penku ñëw nga bi sama soxna ji jógee penku ñëw nga boo soxla tamit ma ñëw kon pour wane rek ne man ak yow ànd gii ñu ànd yàlla rek lañ koy seddeel te ku ñu jegewut mënu koo xam ndaxte defuñ ko ci ngistal te lii nga ma invité tey ci sa bés bi day wanek rek ne cofeel gi ma am ci yow te mu yàgg ba léegi moom nga am si man naam damay def politique naam yàlla am na lu ma jég jéglelee waaye bi may ñëw de ànduma ak délégation politique ñi may àndal su may xarit lañ yu wér ci man ànd ak man te yàlla rekk tax ak ngor ak wóllëre muy faxa mii ànd ak soxnaam ma ànd ak suma soxna ñëw fekk fi Saliou Dieng mii di suma wóllëre ñu ñëw yow wax nga ma lim def sa diggante ak man bëggul sax ma ñëw fii moo ma teral këram moom ak soxnaam ak njabootam donc maa ngi lay ñëw Ibra di la wax ne maa ngi ñëw di féddaliwaat ak yow sama wóllëre rusuma benn yoon def la suma xarit rusuma benn yoon def la suma doomu ndey yoon wi nga nekk nag nii rek la nit moom li nga nàmp rek ngay gal te fi nga bokk li nga wane nii ak mbooloo mi la fekk si fii nii rek nga mun a mel yàlla na la yàlla lafal cat ku la xaar yàlla na xàddi li nga taxaw teg ko ci yoonu sëriñ Touba ak xasaayit ak alxuraan bi te foo koy jàng ku ko déglu xam ne lu wér la lu jugee ci xol di ñëw ci xol yàlla bu la cat dugg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tuub di jéggalu kàddu gi ma yëkkati ndax teraanga teraanga rek la yàlla seede na nañu bi ñuy départ dakaar lañuy ñuy ci fi ñuy liggéeyee xew-xew bu bees bii am ci waaye malgre tout dañ ne foo ñu ñëw fii ndax yaa ñu ko ji ñu bëgg a delluwaat léegi ci jàmm di leen ñaanal yéen tamit képp ku fi ñëw yàlla ko yàlla na nga ñibbi ci jàmm ak salaam di leen ñaanal ngeen ñaanal ñu ñaanal réew mi jàmm am fi ndax lii bu fi amee tey jàmm rek moo ko waral politik bëri na coow nit ñi bëri nan wax réew mi doy na waat waaye bu ñu delluwaatee ca fa ñu bokkoon muy ci diine gi ñu nekk ak tarixa yi ñu bokk ak ki nga xam ne moom lañ gëm wóolu ko lu ñu jàngal muy dal yar teggin nangoo liggéey mag topp rakk topp mag mag yërëm ndawam yàlla mun nañu suturaal kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ngeen ñaanalal ma sama xarit bi sama doomu ndey ji yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla yokk yàlla suturoole ko juboole ko ak ay mbokkam sant kontaan nañu lool nag fii ñu ñëw fii fii leen daa ñëw gàmm boobu élève lañ dañuy gàmm ba fajar ñu dugg ci jàkka ji booba melut nii mu mel mu jiite fajar boole ma ak imam bi mu ñaanal ñu te loolu jigédiwuñu donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ci kàddu gi bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. waaye moom yàlla daa dogal li wax noonu rekk la demee suñu diggante boobu ñun ñaar ñëpp kenn ku ci nekk tout nga mu nekk fii ci Mbàkke di jàng école. ñun ñu nekk fii ci kër gi nekk ci daara ji yan ci lañu soppe booba ak léegi ñaar fukki at ak yi day topp te musul nekk ci lu ma xamul fu mu fu nekk damay wax ne ma fii la toll ak fii mu ni ko yàlla terale may ko ba député ba fii mu egsi musul sensé li may wax ci lu baax lépp ci moom la nekk comme dafa wax nag te moom dafa war a liggéey suba Dakar te war a dem moo waral ma jël kàddu gi ngir delloo ko cant gi di xamal ñépp ni moom sama xarit la màggal Kazu Rajab bii këram lañu fanaan teraanga bu ne defal nanu ko ngir yàlla ak sëñ Tuubaa kon moom bu ma santee benn sant naa ko fukk nit ku dëggu la nit ku sincère nit ku baax yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla defal li mu bëgg lépp ci politique lépp li ngay yóotu yàlla defal la ko barke sëñ Tuubaa ku goree ngi ni ku baax yàlla la yàlla sàmm maa ngi sant sa soxna Khourédia Sall ñu di ko wax madame Sall mooy ku baax moom it noonu la mel ci man su ma demee kër bu naa ma su ma fekkul bu naa ma day mel ni fekk naa ko fa muy madame Sall mi toog ku baax ku yaatu te jii ci bëccëg damaa toog mu woo ma téléphone ma wooyee dama yónnee ma say photo dama am lu ma la bëgg a defal waaye ci xataay bu ma xat tey awma benn espace ma fàtte loolu waaye loolu lépp ay taraanga yoo xam ne moom saa su nekk da koy doxali sama diggante ak moom anniversaire bu bu naa ma mi invité na ma ci Dakar ma ñëw mu defal ma ay taraanga moom soxnaam ma nga ne toog defal ma ay cadeau yu am solo kon maa ngi koy sant di sant faxam yi mu àndal ak soxnaam di leen remercier di leen ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla taxawu leen te sàmm leen barkib sëñ Touba kontaan naa trop sama xol sedd na dama am ay kàddu nag yu ma ñor yoo xam ne ci kanam laa ko war a wax ndax eh, ku ñuy wax Modou Bakara mi ngi nii sama ginnaaw dama ma defal ay taraanga yoo xam ne eh, taraanga yu am solo la moom bés bi dajee jàpp jàppin woo xam ne wallaay laasim li mu def ci bis bi su ma toogoon fii di ko wax dañ naa am nit ku baax la mi ngi ni toog moo sonn sonn li di nit ku baax waaye ñoom danaa ñëw ci ñoom ñëwaguma ci ñoom ci kanam lay ñëw Moustapha Diop Papis mais noonu la mel ci man di nit ku ma taxaw nit ku baax di politicien ne ci dëkk bi waaye lépp lu ma nekk da ci nekk moom Moustapha kon Moustapha bit na sant naa la sama xol sedd na ci yow galo nag moom moom it noonu la ma taxawoo ndax bis bi lu mu daan def rek def na ci lu ko kowee moom it danaa ñëw ci moom ñi ko fi nekkal ñëpp ñu ngi nii toog man dëkk bi awma fi am saarit ñépp samay xarit lañ sëñ Mor Aan Guèye gi nii di sama xaritu nijaay Souleymane Dieye jiite PS nekk fi di fi jëf-jëfin ju rafet moom it mi ngi nii toog jiite gone yi ñu ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko taxaar ko kon daal bu mu waxee damay juum bu naa la mi tey indi na fi taraanga yu bari ay teraanga yu bari la fi indi yoo xam ne mën na jagal bis bi ginnaaw bu loolu weesoo it ñi ma tudde bis bi ñooñu wax dëgg yàlla ca kanam laay ñëw ci ñoom ñoo moom bu may wax ci ñoom day am ñu may wax waxle faaw day am ñu ne ci saa wet bu ma waxee ñoom it ñu wax am na dañ may wax ak ak ak ak ak sëñ may sekk mais toog moom it démb la fi indi ay teraanga yu bari nit ko baax la ku woyof mën naa li ci ndaje ba jóge ci sax doo xam ne say sëñ may mi ci jataay ay taraab yu bari la fi indi kon xam naa foofu laa yemal sama kàddu ndax bu ci kanamee faaw ñëw ah bàyyi sëriñ Gueye fit ah ànd ak délégation bu am solo. daan jëm ci Sayful Xadim Sayxul Xadiim mi nga xam ni nee na ku ma dul waxtaane itam yàlla ak i malaakaam waxtaane nanu ma sakarani sol aradina wa sama sukuran la dal axyaari xarrusi nee na boroom asamaan ak suuf cant na cant koo xam ne séeréelu ko kudul ñi am wilaaya la dal axyaar sunu mënoon may tuuti ak dégloo dina am solo lool Sëriñ Fàllu mi nga xam ne moom lañ génn ci màggalam muy Kazu Rajab ak fonkeelam ci Serigne Touba daa akoon ci bu ñu tuddee sëriñ bi bu fekkee moom tudd ko làmmiñam dootul jóg te njabootu Serigne Touba gépp noonu lañ mel. li ma li ma seetlu te ñëpp seetlu ko war ma ji ñu joxoon Serigne Touba njulul taxut xam-xam bu ñu amoon ci moom la benn doomi Serigne Touba boo gis mu dugg ci biir barab bi traîné amul Serigne Saliou ci pegg keno boobu la daan toog li ma lay wax lu ma xam. mujj gi daawul génn këram ndax tamxarit ba tamxarit la ko daan siyaare ji Sëriñ Tuubaa moo toll noonu buñ ko daan tudd Sëriñ Fallu borom baraag bi daan wax Sëriñ Saliou daan wax ci mujj gi ci mujj gi daan wax ne ci mujj gi bu ne ci mujj rek Sëriñ Tuubaa la ji mag ñi buñ ko mosaan di tudd dañuy dem jàpp yi buñ demee ba war koo tudd dañuy dem ba fële jàpp ba sell doogu ñëw na sëriñ bi léegi nag àgg nañ ci buñ ko dee waxtaane kenn du dégg te koo xam ne buñ koy waxtaanee malaaka yi naan tekk di déglu sëriñ Fall dafa dem Ndar tubaab yi yoroon sëriñ bi am ci kuy waxtaan ak moom ba waxtaan wi tàng mu ne sëriñ mu ne sëriñ bi mu ne ko mbàkkee mu ne ko dégg naa yow ku bañ tubaab la sëriñ Fallu ne ko su ma des gor war leen a bañ ndax li ngeen bëggoon su ngeen amoon sama rakk su ma des gor war leen a bañ ndax su ma leen li ngeen seeni pexe bu joyoon sama rakk yu baax yi duma leen am sëriñ bi fii la feeñee fii moo tax dëkk bi ñu ñu ñu war a prêter attention lañ ci seen bopp fii tey xam naa ne waxtaan wi dana gàtt waaye dana am lu ma feeñal waa mas ngeen a gis ku war a dem ba war a feeñ sa waajur nekk ci ki koy jàngal kooko ne ko di nga am ab taaw ka ca topp nag ma ko tuddee parce que a dégg lool Sëriñ aw turam ci njëlbéen gi dañ ko demandé mbirum divin diggante mbirum yàlla mi am ci digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak digganteem li waral mu way sayyidatuna Maryam ab secret ab secret moo ci am bu xóot fii la feeñee sëriñ bi 1853 sëriñ Bamba Sall moo doon jàngal sëriñ Mamour Anta Sali sëriñ Bamba Sall doon doon jàngalaale sëñ Ahmadou Ndoumbe Mar Sine ñoom ñaar ñëpp la ko waxandoo kenn ku ci nekk sa doom ju njëkk ka ca topp nag ma ko tuddee te ñoo xam da nga leen di jàngal ba leen di yeewi di leen wax loolu Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Bamba Sall lañ ko tuddee Bamba Sall ndeke sëriñ bi li ko liyee diggam ak Rasulullaahi foofu lay feeñee ndeke ndeke bi muy doon wilaayatul kubra muy muy muy wilaaya bu mag bi nga xam ne ku ko doon yaa doon Rasulullaahi ci kaw suuf mooy Ahmadu ji Ahmadou Diouf bu feeñoon ci diggante tur yi ñu xam ci aada kon sëriñ bi li li mu war a doon dëgg duñ ko xam moo tax yàlla def ci xelam sëriñ Bamba Sall mu ne mu ne sëñ Mamour Anta Sali ki ngay njëkk am ka ca topp nag moo ko tuddee moo tax sëñ Abdou Lahad bi daana ko bind daana bind Bamba Sall daana ko bind. waaye ama wasa sin ci daaru salaam la xëy na bu ma kenn waxati bamba sal bis ni ki tey abdullahi wa xadimu jaamu bu yàlla laa tey liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamu leen ne sëriñ bi lim fi fekkoon bu ci yemoon du am lante kenn waaye lim fekkoon mooy diine lislaam te wax na ko diinum siwa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu diine diine diine yëpp lu ci dul lislaam yàlla sant ko te man moo ma tax a jóg moom laay yeesal waaye dama laa bëgg a xamal ne dafa am lu ñuy wooye wilaayatul kubra képp koo xam ne sa tànk bi boo ko yëkkatee day mel ni Rasulullah moo ko yëkkati soo ko tegee day mel ni moo ko teg loolu mooy wilaayatul kubra loolu mooy indi jafe-jafe yi waaye su fekkoon toll dem ci jàkka ji la woor woor yi tabaski yi ñu xam ci sariya rekk la du am lan teg kenn waaye ngir lislaam war fee sax di dem faw mu wane luy tax loolu moo tax di gëm ak Rasulullah yi dafa am tuuti secret bu ne ci biir boo xam ne deesul teg teg xalima naan alif baa jiim deel déedéet lu yàllay def ci nit la